pour les, pour, pour les autres, quoi, pour des sociétés, pour des, pour des individus, pour des ONG. donc j'ai commencé ma carrière en dessinant des voitures pour Renault pendant 14 ans. J'ai puis j'ai migré aux États-Unis de la France. Je suis allé aux États-Unis à New York pour créer mon agence de design. Et depuis 2006 à peu près, je fais des allers-retours entre. j'ai fait des, commencé retours entre entre New York et Dakar, où j'ai commencé à moi, je dirais que j'ai commencé à flirter avec le, le, milieu artisanal. Après avoir vu l'intérêt de l'artisanat au Sénégal, Bibisec, depuis deux ans, décide de créer en collaboration avec un de ses amis, Omar Sow, la galerie 1408. Et il nous parle également de sa vision de l'artisanat au Sénégal. Depuis euh, deux ans et demi, avec un, mon partenaire, qui s'appelle Oumarso. Nous sommes tous les deux nés le, le 14 août. C'est pour cela que nous avons appelé notre espace le 1408. Nous avons créé en ville, au plateau, une, euh, une galerie d'art, euh, surtout euh, dédiée à l'art contemporain en Afrique, mais également une boutique, un concept store qui, qui a vocation de mettre en valeur euh, le développement de l'artisanat par le design. Quand je pense par exemple à Johanna Bramble avec, euh, avec euh, ses tissus et ses textiles, elle fait autre chose que ça. Elle, euh, elle travaille avec des, des tissons au Sénégal et ses produits sont... Je sais pas, il y a quelque chose, il y a comme une euh, une fièvre euh, créatrice, il y a une révolution créative au Sénégal. Je l'ai, je l'ai déjà dit, il y a une, une espèce de révolution créative dans, dans, tous les domaines, aussi bien dans la bijouterie que dans, le, le dans la, la, couture, dans le mobilier. On, on, trouve des choses extraordinaires et des gens qui nous représentent bien aussi euh, en international à l'extérieur. Donc, euh, moi, je crois que le, le mot-clé, euh, c'est que euh, le, le, le, le, développement des pays, lorsque je pense au Sénégal, ne pourra pas se faire sans le développement de l'artisanat. Et comme tout bon Sénégalais, il nous incite à consommer local pour le développement de notre pays. Les conseils que je donnerai aux gens, c'est que dit, euh, de, de, faire vraiment confiance aux artisans et, de, et peut-être de les aider Et, et je m'adresse à des sociétés ou où, où il y a des organismes qui sont prêts à développer l'artisanat en Afrique, de vraiment comprendre et de discuter avec les artisans pour comprendre vraiment ce, ce dont ils ont besoin. alors di ko jaajëfal bu baax moom mi nga xamante ne moom moo di Bibi Seck qui est un designer mu wax na quelque chose de très important parce que xam nañ ni artisanat euh, dafa am solo ci sunu réew message bi mu lancé nag moom moo gën a am solo parce que wax na nag nit nit di consommer li nga xamante ne moom moo di local te bu nee wax local ñi ngi dem ci li nga xamante ne moom moo di tëgg yi ñi ngi dem ci wàmm wàllum togg bi ñi ngi dem ci li nga xamante ne moom moo di euh, xeet yi am ci réew mi tailleur donc je pense que c'est très important que tey loolu sax laa def boo leen ma gisee consommer sénégalais naa la wax ensemble bu nice <laughs> ñu ñambaas ko jiin bi et ma xool la fan la wax dëgg fa yàlla boole kooku mu defal ma ci lu nice ñu sol ko parce que lu ñu sol te sol ñu consommé local consommé local moo ñu ko gën parce que mm-hmm. temps yi jeunesse dañ cee jub mm-hmm. ñun lépp lu ñuy sol dañ koy def consommé réussir nañ lépp sakos dañ koy ñawal suñu bopp dal dañ koy ñawal suñu bopp mm-hmm. tubéy yére lunette lépp

cuir la yoo xamante xale ngaa yee koy def et je pense que da ngay gis ñu bare di jóge bitim réew ñëw di ko jënd donc ñooñu tamit di ko jënd ñun ñi nga xamante moom moo di Sénégal di jaay ay produits recyclés defaraat ko à un tel point euh, sénégalais yi mun nañ ko consommer ñu koy nuyu waaye comme niñ koy defee nag euh, mbokku téléspectateurs yi ñu ma leen di ko wax ñi soog seen télé yéen ngeen en direct de li nga xamante nag moom moo di week weekend start weekend start sultan nii lay demee musique yoo xamante ne day neex macha allah ma ànd ci ak Toch moom itam le perturbateur waaye l'enfant le très aimé euh, de li nga xamante ne moom moo di réew mi parce que vraiment moom itamit c'est un pétri de talent xaw ma tey indil nañu yu neex yooyu waaye bébé tey dañu dalal kenn nag koo xamante ne ndaanaan kulli fadrin la am nañ gan boo xamante ne je pense que boo leen fàttaliku euh, tuuti rek pour may leen ci ay ku la faar ak ku la maquillage ak ku la cappa cappal waaw kooku nag ku a kooku nag moom moo di Alé Dieng Alé Dieng nag ñi nga xamante ne gis ngeen ko xam naa war ngeen ko xàmmee mhm. namoon ngeen ko tey moom moo ñëwaat indi li ñu leneen waaye balaa dara Alé mhm. dama lay bàyyi nga nuyoo waaye nee nañu otoraay bu jibee day konne il faut nga fàttaliwaat gars yi boobu ku la capal capal cappal nakati la woon. sama gént gi de maay bi naaxu maay. Mm, ndeysaan. guddeeg bëccëg subaak ngoon yow lay xalaat. amul géwél amul géer yow laa bëgg xale bi xale ni jaaral nga ma. kula maquillage kula doon faar mado kula ko jàppal jibiri ba xale bi moom de tooñ na ma kula maquillage kula make up yow kula sopp ba taamu la bu la soppee woon ko fu la Eh, macha allah kooku nag moom moo di Aly Dia le grand artiste bi nga xamante ne euh, boobu ba léegi mi ngi nekk nag ci xolu sénégalais waaye tey moom nañu dalal fi nga xamante ne moom moo di télévision Futur Média mu indil ñu nag vidéo bu bees sàkk boo xamante ne ñi ngi ko tuggee Firi Dinga ñu àndandoo ak Toch tegal leen ko ngeen gën a xam vidéo bi su boobaa nag ñu bàyyi ko ak tos mu waxtaan ak moom tojee ñoo ngi jëm plage Ngor ay ca leen le samedi 6 août à partir de 10h jusqu'à 18h30 yendu bu saf sap congante bu metti entre les candidats de Sen Petit Gallé compétition tagg sa maam waaye nag ñu nar a tëj ak concert DJing ànd ci ak PNG ànd ci ak ay star ay décembre Momo Dieng Jeyla Khirsa Moustapha Astar Aïcha Koné ak Mbëggé Venez vivre une journée extraordinaire en famille avec Sama Show entrée unique francs mën ngeen ko jëndoo aussi sur Orange Money ak suñu code marchand bi jàpp leen 47 85 32 infoline 77 182 20 82. Orange Money sponsor officiel de Summer Fun Show saison 1 Dave Léchard

gën di maye woon wér mu ne ma way sagal sama fant yi sant leen sagal leen woykat bu mag maa xanaa li ñu naan rek naan kulli fadrin kenn du la présenté ti ci mim waaye je pense que tey mm-hmm. ndaanaan bi waat nga ko ci vidéo bu nice bi nga xamante ne euh, moom nga fi indi alors firi naka dañ koy tekke sax firi firi ndiga firi ndiga loolu ban kàllaama la ak lan lay tekki firi ndiga en fait euh, benn morceau bu yàgg la boo mm-hmm. xam ne peut-être grand Youssou Ndour war na ko xam Nicolas Menem parce que ñooy biñ koy def booba étoile moo amoon super étoile donc c'est un morceau de Nicolas Menem que j'ai oh. repris mm-hmm. parce que man des fois damay gis ci ancien morceau yi mm-hmm. yoo nga xam ne peut-être nit ñi amuñu chance su découvrir ko yoo xam ne mm-hmm. day neex harmoniquement neex mélodiquement te duñu am chance suñuy kii te man dama nekk euh, nostalgique donc ma ni au fait naa ko reprendre mais c'est un bu nga xam ni euh, c'est une reprise de Nicolas Menem Fadi Ndiaga Péréniga dafa mel ni tamit génn nañ ci ay sonorisation yoo xam ay sonorité yu mhm. neex yoo xamante ne day indi tuuti euh, jox la ñi fu ngel mhm. léeg tuuti xaal pulaar sax da ko ci mhm. sentir waaw séeréer séeréer waaw ngel séeréer effectivement parce que boo seetee morceau bi parce que lii nii c'est un album c'est un album de 15 titres qui est sorti à l'extérieur depuis il y a depuis ça fait ça fait 6 7 mois ah, ça s'appelle Racine de ma vie Racine et son album international de quinze titres. macha donc euh, sama benn xarit tubaab Antoine Marcorel. Mhm. moo def album bi. Mhm. après il a sorti à l'extérieur ku dem ci plateforme yëpp yi nga xam ne ñu ngi nekk ci plateforme digitale yi iTunes Midi euh, euh, YouTube yooyu rek moo ku ci dem di nga ko am quoi voilà Spotify di nga ko am donc ma ne pourquoi pas ma jël ci benn avec mes propres moyen ma def clip bi. parce que j'ai vu que y a des morceaux très intéressants là-dessus et comme nit ñi dañ may topp dañ la gëj a dégg dañ la gëj a gis ah ma ne nag je vais faire mon comeback malgré que uh-huh. ñi nga xam ne ñoom peut-être ñi ngi suivre euh, lii xew ci Sénégal lii xew ci Ndakaaru xam nañu je joue les vendredis les samedis et les dimanches ah bon waaw je joue par exemple le vendredi mm-hmm. je joue au Sangomar parce que man dama ni comme parcelle laa dëkk. Mm. damay dem fi nga xam ne fa laa dëkk foofu mooy suma base dafay fees dell. les dimanche aussi maa ngi dem booru au bord de la mer. Nations Unies Escale foofu laay joué donc. Euh, di damay varier mm. tey maa ngi Thiès suba maa ngi Mbour suba maa ngi Jëppal gannaaw suba maa ngi ci hôtel yi parce que léegi je me suis carrément dama dem carrément defi acoustique quoi acoustique voilà donc je joue tous les vendredis mm-hmm. samedi et mm-hmm. mais peut-être ci télé yi lañ mm-hmm. nag moom boo génnewul clip te man moom dama nekkul faanu télé lool dama naan boo génnewul lu bees rek uh-huh. jarul aussi ngay bëri tànk ci télé en disant sax que ni la première fois mm. ba TFM de TFM. Mado yaa ma fi njëkk <laughs> yow laa fi njëkk defal plateau. Ah, n'est-ce euh, grand bi c'est vrai que namoon nañu voix bi lool lool lool lool parce que bu ñu ko déggee ñun daf ñuy fàttali lu bare bëri parce que ku la maquillage ku la doon faare mm, mm, mm. loolu muy xale yi muy mag yi ñëpp koy béggee loolu ñëpp ko bëgg yow waroo xaar rek ba génnee vidéo pour ñëw ci télé yi yow waroo di ci télé yi parce que yow da ngaa bokk Sénégal yow xam nga xam nga toos xam nga toos musique du compétition compétition la course de fond la course de mhm. en fait bu fekkee amuloo dara mhm. lu xam ni y a rien de spécial y a rien de nouveau mhm. mieux vaut nga toog nga liggéey sa liggéey parce que par exemple yow mi ma déglu woon peut-être en 2004 dégluwaat lii en 2022. di nga xam ni a amélioration. am na lu bëri lu beesaat. Mhm. man foofu laa ko jàpp quoi je me dis que ni musique mhm. ndànk-ndànk la rek l'appétit vient en mangeant. et puis dañ ci nekk malgré que ni on n'a pas on n'a pas on n'a pas label avec nous. on n'a oh. pas. d'aide nécessaire avec nous c'est l'occasion pour dire pour dire que ñi nga xam ne bon je m'adresse déjà à Ngoné Ndour ak ñi nga xam ne ñëpp am nañ ay mhm. label waa Prince mhm. il y a des non-voyants xam ne ils ont le talent il y a ouais. les mhm. handicapés mm xam ne ils ont le talent mm -hmm. ils ont envie de chanter ils ont envie de montrer leur talent mais ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir faire ça comme ñoom ils ont des labels et trucs nañ leen jàppale. effectivement parce que par exemple damay jël damay jël exemple ci Yoro Ndiaye bu dee Yoro Ndiaye la tey Mado. bu deful musique. Mm-hmm. mën na dem defi leneen. mais Alé Dieng tey ci musique la yor njabootam. Mm-hmm. ci musique lay joxe dépense. Mm-hmm. ci musique lay fay courant. ci musique lay fay ci musique la donc kooku s'il a un minimum ah. de talent. s'il a des gens derrière ki boostent qui appuient. dafay jàll donc daal c'est un moment de leur de leur c'est un cri de cœur que je lance à Ngoné mhm. à Youssou mhm. en lui disant qu'il n'a pas mhm. le droit de nous laisser tomber effectivement et je pense que moom fàttewu leen bu baax parce que boo xalaatee li nga xamante ne moom moo di Prince Art je pense qu'ils ont été aussi euh, jàppale nañu bari ñoo xamante ne de non voyants yoo xamante ne tey mun nañ dem ci Ablaye Mbaye euh, la sœur de Ablaye Mbaye ci yenn émission yi nga xamante ne dañ ko def ñoom Baye Assane mhm. eh, seen petit gallé donc mhm. promouvoir promouvoir bare ñoo xamante ne c'est des non voyants mais comme tu as dit effectivement moo tax par de cœur et je pense que tu as bien choisi jël par exemple ñun on a le talent nécessaire peut-être duñ xamuñu dara mhm. si on a des gens derrière ñu ñuy booster jàppale ñu je mën nañ leen indil ay que le cri de cœur est ko jàllalee aussi c'est la bonne télé mhm. mooy télévision Futur Média waaye léegi tamit bu ma déggoo tuuti mhm. euh, ci ay kàddoom tos dafa ne génne na benn album boo xamante ne mhm. euh, ñi ngi koy euh, mi ngi nekk ci fi nga xamante ne moom moo di but voilà à l'international comment se passe ta carrière là-bas wala tu prévois de faire des choses à l'international waaw foofu moom prévoir na lu bëri parce que biñ ko génnee dafa tombé nag corona bi mais comme jeex na te vraiment c'est sorti loolu sax ni mu dikkee dama la koy nettali rek de façon succincte. ouais damay jouer live Facebook. Mhm. di ko def live Facebook tubaab moo gis ca kaw. ni ma je sais que tu as un talent mais t'as pas les pour faire ça. je suis novice de la musique mais je vais t'aider pour que tu puisses sortir un album. macha mhm. donc comme je voulais chanter comme je voulais chanter. on a sorti son moo nekk ci biir à peu près. am na am na ragaluma loolu surtout maquillage. am na bu ñu commentaire. Uh-huh. am na bu may soreeti am na Silmaxa remix. am na hommage à Ablaye Mbaye. am na Nabi. bëri na ay morceaux am na. Baye Fall style musical bi tuuti. style musical bi world music la. yeah on a fait du reggae on a fait de l'acoustique on a fait un peu un tout petit a du folk. Saala yow ndekete da nga doon liggéey de tox. bébé kii wax gars yi leen nañ ñu xaar. bëgg nañ def ñaar ba ñetti nag dellu si waat. incha allah parce que Sénégal yëpp ñu ngi mënaan fu ma maa ngi nii ñëwaat na te te te li ma gis fii nii. Mhm. non grand bi boo ñëwaatee da ngay yëngal. ñëwaat naa incha allah rabbi comme ni nga waxee rek ne yow da ngay xool li nga xamante ni c'est mhm. c'est archaïque loo xamante dafa yàgg mhm. moom ngay jël may ñu ñun suñu sens nga xamante ni la nouvelle génération ah ñu découvrir mhm. jàppal ni nouvelle génération bii nekk fi tamit soxla nañ laa découvrir parce que ku la maquillage ku la doon faare loolu jamono ñoom Tata Mado la woon 2004 <laughs> di ko seetaan ak di xool mais ñun <laughs> nouvelle génération bi soxla nañ la suñu wet nga ñuy musical parce que voix ni nam nañ ko eh, li ma surprendre surtout clip bi ah. li ma surprendre ci morceau boobu mooy ba tey dafa am gars xam ne sur le TikTok non du dee ba tey ñu ngi koy YouTube du dee li ma ciy gis ci ay vues non non

na leen fi nga xamante ne foofu donc je pense que c'est l'occasion parce qu'il vous prépare du lourd donc le message et le cri de cœur est très bien passé aussi et je pense que ça va pas rentrer dans l'oreille d'un sourd parce que moom il le mérite ndax grand monsieur et surtout un grand de téléphone touch parce que ñi ngi ci Sénégal Orange Money pour loolu yomb da woote ci numéro yi nekk ci muy 88. 676 05 05. wala 88 628 65 65 wala 88 628 mhm. wala 88 676 06 06. foo nekk ci mhm. Sénégal nga woote te ki nga xam moo di Tata Mado. ak ki nga mhm. xamante ni moo di booy. toos booy bu koo boobu noonu. ñu may la xaalis bu bari nga zongé ak moom ci ngoon gi. <laughs> effectivement ngeen jonglé wax na leen ko donc télévision Futur Média pour yéen la vous êtes en ngeen jël li na jot duñ parce que je pense que ça va l'aider à passer mhm. euh, week-end bu neex parce que mhm. comme niñ koy waxee ñi ngi vendredi euh, ñi ngi samedi mhm. dimanche te ku ne dimanche lundi inchaallah moom moo nar a nekk bésu tam xarit tam xarit bi nag xam ngeen ko au passage ñuy waaye bu baax ki nga xamante ne moom moo di Adja Vessel parce que mi ngi ci doon ànd ak ki nga xamante ne moom moo di Awa Gaye <laughs> fi mu ne nii génnee na xeetu ci euh, génn cere yoo xamante ne law la cat mais cere yi xam nga buñ koy yàq dañ koy dugal ci ay ndab yu baax a baax dëgg waaye balaa ndab yooyu law la cet ñun am nañ ay téléspectateurs yoo xamante ne saa sone dañuy dugg ku ci duggoon fi mu ne nii loo koy wax ku ci duggoon dañ koy may euh, li nga xamante ni moo di lu mu duur na lay cereem déggal loolu loo bombee sa cere parce que cere fi mu toll nii bomb gi gars dañ koo innové bomb gi léegi dafa bëri fere lu ne la ñuy def ci cere yi tata Modou loolu war nañ cee wax. jéggal loolu. gars yi cere dañ ci yow kon ko allo wax moom dañ ci am na ku ne ci ligne bi. maa la wax léegi. salaamaaleykum mbokk mi asalaamaaleykum. oh dafa mel ni dafa dem. dafa bougé. rappelé waat leen numéro yi léegi léegi nga ñëwaat parce am na lu ñu la fi dencaloon sama loxo ngi woon nii sama poos da doon nii rek ma ne ko cuy rek nga daal di sa ceeb. aussi Badou yaram dafa tàng dafa yaram. dégg <laughs> loolu tàngam dafa yaram ba tax na nee na képp ku woote dina la teral ñu wax allo am na ku woote waat 88. 88 628 naka naka. 88 676 05 05. wala 88 628 65 65. wala 88 628 20 20 88 628 06 06. 06 06 ci noonu rek ñu àndandoog ak ki nga xamante ne moom moo di tos mbokk téléspectateurs yi tegal leen nag benn xale boo xamante ne dafa xew ci jamono. Ah. xaadim temps yëg nga ni dafa clip. clip na de ñu àndandoog ko vidéo. wax naan su nañu ànd liggéey te waay te waay baayu Umar baayu Alin baayu Ney Kase góoru Faato baayu Idi doomu Ney Adama ak Kase plus Astro Cassette naa ne moom la ñuy woy son bi nga xamante ne moom la xaadim temps euh, teg xaadim xew na tam de. ñàkkul ne aaw la wala ñaari xaadim temps rek. <laughs> daa ma doon boo doxantu woon. borom na na na na na. na na na na na na di capp safaar ay ba muy <laughs> yow xam nga ni xale ak dara nga allo <laughs> allo salaamaaleykum allo ma chérie allo alo ah yow nag tey kontaan naa xale jigéen rek dugg de bébé allo. allo oui. ma chérie noo tudd ak koy wootee ça va. Euh, Nogay laa tudd. Nogay. Nogay noo sant. Diouf. Diouf. Mm-hmm. Diouf a ñoxo baay yow loo xam ci Diouféni lan nga leen di tàgge sax Diouféni. <laughs> sàmba bàyyi ma yem sàmba na xanaa baax. baax waaw boole ci baax. baax nañ ñoo yoroon réew mi. <laughs> no fan ngay wootee exactement. Euh, maa ngi Touba. fan. Touba. yaa ngi Touba fan ci Touba. Mhm. daa ko ah macha allah foofu nag am naa fa sama yaay de soxna Baali Muntaxa ba mi nente nga ak moom. <laughs> waaw. ah ñu ngi koy ziar soxna Muminatu Kebe nag. Mhm. miin nga ko. Ah, pardon. ma ne soxna Mominatu Kebe nag ba miin nga ko ca Touba. ah waaw. ah law la cat yow de wa papa laa fa am. dégg lii wuyul tos nee na am na fa papa. Daaru Kudus sëñ Mouhamed Dieng Samsu Rijal. ah waaw waaw moom itam ñu koy bëggee yàlla baaxal. donc je pense que min nga teranga Sénégal gis nga carte Sénégal. waaw nii macha allah. Mm-hmm. alors ci carte bi ban dëkk ban région ngay choisir. Euh, Dakar. Dakar waaw. tos nee na Dakar. <laughs> kon ñu àndandoo tu valides pour la région de Dakar. Ah, Dakar dañ koy Dakar dafa. waaw Dakar dañ ko Dakar. oh oui Dakar. Eh. Eh. capitale <laughs> Sénégal. alors kon nag ñu Dakar en direct pour Nogaye. maa la wax lii moom it sax dañ ko waroon sax mu way way bi. <laughs> ok. jégalee ma way bi rek. Hmm? laal nga fu xaw am ndox nag. man maa la wax. allo. cinquante mille francs. équipe de taekwondo équipe <laughs> de Teranga Sénégal. man oh, maa tàccu leen loolu. alors santé pour toi Nogay ñu ngi koy félicité bu baax a baax moom moom moo am léegi euh, cinquante mille francs ci li nga xamante ne moom moo di Teranga Sénégal. Mm. waaye sans plus tarder parce que xam naa ne temps bi nag mi ngi dem. ñu ngi toog di mbeeraay rek. Mm-hmm. ñu seetewaat leen santé ci ni ma leen ko waxee ak ay mm-hmm. ndabu. Mm-hmm. jus bi kan mooy indi jus bi. Adja kan mooy Adja Vessel. mooy ki nga xamante ni mooy def yu baax yi nii. dégg loolu vaisselle lekk geeg naan geeg lépp plateau bi bu yànjee nii Adja vaisselle la bu dul woon moom lambaay day ñaaw maa la wax li donc tout de suite dinañ leen jox li nga xamante mhm. moom moo di numéro de téléphone bi Khadija bu ñu ci yi mhm. nga xamante ne da ngeen war goro mhm. ndax wax nañ ko lundi incha allah la tam te nee nañu cere balaa neex euh, nga yàq ko tamit ci ay ndab yoo xamante raw la cat moom nag indil na leen une série de collections yoo xamante jour tam li ñuy def rek tout de suite baby bu mm. dañuy recevoir kenn koo xamante ne rappeur la yéen a bokk génération dama la koy présenter nga woo ko yeah danseur big up next danseur on the mix in the plateau yeah navier ay kii la la la all Hey, wait, that's what I need. xamante ne li ci gën a neex parfois ils choisissent de chanter ci li nga xamante ne moom moo di euh, seen langue li ñuy def rek dama koy bàyyeeg Toch mu wax ñu lan mooy woy bi parce que tekkil bi bu ma ko jumulee mooy ki ko sera ki ko sera lan lay tekki nga wax ko mais ñu nuyoo ba pare avant tout avant tout dañuy dañuy dañuy kontaan trop man lu mel ni fi ma ko gisee damay kontaan gis sama génération waaw kii boo xoolee xam ne judduwul maa ngi moom yam ay xale yu ndaw la xam ñu xamuñu dara mu def lu nice lii man su ma gisee lii sama xel day dem ci ñëw Wizkid. dégg ah, loolu kii bu ko xoolee xam ne kii niveau bi da koy yóbbu niveau international. ah clip bi c'est trop nice ah bi nice lépp cool affaire nice ba pare muy way ci li xam moo di làkkam. Mm. loolu c'est à saluer quoi. macha allah Thier nuyu nañu damay nuyoo. Mm-hmm. franchement mm-hmm. te kontaan ci mm. parti participation bi. Mm-hmm. Mm-hmm. bon nekk lu nga xamante ni dama yàgg di def émission wala moo tax nga timide waaye yëkkatil poids bi <laughs> jàkkaarloo gars yi téléspectateurs yi. <laughs> sa caméra ngi parce que yow da nga lu garaaw. Mm-hmm. maa ngi leen di nuyu. bien <laughs> sant te di leen ni ko dama ci kontaan. bon Guigol ndeysaan non liggéeyu xale moo tax xale gi mu doon mm-hmm. mu jël micro man dama bëgg nouvelle génération téye nii micro bi quoi non man bëgg naa booy yi bu doon la ngay téye sa micro naa ni yaa eke eke happiness <laughs> def nga li war a def lépp yaa ngi plateau ko mu téye ko normalement wax ak téléspectateurs yi yuuxul bëgg na <laughs> waaw bon Guigol Seera mooy mm-hmm. tuuti mbëggeel quoi mm-hmm. parce que ñun suñu génération bi pour mbëggeel bi taxaw dafa metti dëgg la ma wëy yàq rek ma woy kaa ñu kaa tuuti mhm. ndax sama moroom yi juboo nekk benn mën a bëggante effectivement moo indi Guigol Séra alors Guigol Séra waxi bëggeen suñu ah. yàq rek déedéet kay cap weex bët daal lu ne bu ñuy revenir bi ñu woowaat naan kaay la ñu dund tuuti mbëggeel. da ngeen ciy nangu important nañ leen dund mbëggeel parce que c'est tamit mm-hmm. musique bi day lancé lancé tamit pour mm-hmm. ñun suñu génération bi ñu mën a bëggante. Mm-hmm. parce que xiiroo bi ngaayoo bi xuloo bi. dafa bëri loolu rek ngay gis. léegi ñun ñun nañ bàyyi ñeneen ñi di xulo wala mag ñi. ay wax yu sew ñu mën a dund jàmm. man démb ci ay wax yu sew laa fanaan. nga ne ma ba yow li ngay wax nii. boo tax nga yow amee naqaru xol. na leen bàyyi xuloo bi xeex bi. ay wax suñu génération kenn waxuñu bu ñu bëggante ay xale lañ mais war nañoo bëgg bëggante dund lu mature bàyyi wax yu sew yi gis naa la fii gis naa vidéo bi fii amul solo. mën nga réglé nga toog boo toogul dinañ la taaj taajati la gis naa vidéo bi vidéo bi gis naa la photo <laughs> sikk ci laay kii dafa lancé message waaye yow xam naa ne da nga ko élargir yemul rek ci mbëggeel mais même yéen vous la jeunesse la na ngeen bëggante parce que peace and love ci la yëpp xaj. Mhm. alors li nga xamante ne moom nga def nii. Euh, mhm. vidéo la boo xamante ne est-ce que tu des projets de sortir un album wala amaat na yeneen vidéo yooyu tegagum balaa ngay def album. yu bëri yu ma war a def pour l'instant mais juste que damay nekk ci liggéey bi mhm. yeneen affaire yi tey jeune la mënuma mënuma ñëw rek basé wu ci musique bi normalement ne loolu rek laay def dama am yeneen projet ci suuf c'est quoi les autres projets da ngay jàng wala quest je travaille ah, maa ngi ci art bi maa ngi ci art bi waaw exactement lan ngay def ci art bi damay créer sama propre marque xam nga koy jaay ci marché bi. kii kii la. non booy bi dafa dafa dafa tàng de. kii kii entrepreneur la. dégg nga loolu boo xoolee xam ni as bi nga am nii xoolal amul ragal amul kii. zonze yëngal gësam lu waay uh-huh. nekk na lew rek. yëngal gësam zonze. ci loolu. Uh-huh. Uh-huh. may xamal gars yi sama marque bi mu di sama label. waaw. moom foofu laa nekk fa laay liggéey sama musique mais ci kaw loolu noonu dañuy liggéey yeneen bagage yu nekk ci biir mooy jeunes yi ñu am yëre yu nga xamante ni mën nañ ko sol yëre yu mot macha allah te luy nekk consommé local bi nga indi waat pour mu nekk benn marque boo xamante ni ñun nu ñi nga xamante ni ñoo ñëw. ñoo ko mën a indi mu mën a suturaal suñu jigéen ñi. ban message ngay lancer qu'est-ce que tu veux lancer parce que temps bi nag dafa gaaw. Mhm. looloo tax mais ban message ngay bëgg a lancer. bon message bi may lancer rek mooy ci mbëggeel. Mhm. Mhm. jamono ji dafa toll foo xamante ni lépp ci mbëggeel la basé wu. nañu jàppalante. képp ku ci ne. ak foo Uh-huh. dañ nañ jàppalante ñu bëggante ñu bàyyi xuloo bi ak yeneen yi ci des ñu may la benn pub bu baax rek ku fekkee mën nañ la xool youtube facebook mhm. lan mooy turu page beeg yooyu wala insta quand même waaw sama turu page bi mooy Thier Densol Thier Densol moom laay utiliser ci plateforme yëpp marque bi moom naka la tudd. changer ay record. koy féliciter di ko encourager bu baax comme nañu ko waxee ce sont des jeunes. mais vraiment ils sont remplis d'ambition. donc ñu ah. leen di encourager euh, sama bébé bi wax na ko léegi tout de suite parce que nee na quand même il est dans l'entrepreneuriat ba pare dugg ci musique bi on te souhaite bon vent li ñuy def rek bébé dañuy àndaat ak comme ni ñu koy waxee àndaat ak beneen star boo xamante ne elle est devenue incontournable diggante Gambie ak fi nga xamante ne moom moo di Sénégal ba ci bitim réew ñu gënoon ko xam aussi ci doomu Papa Thione parce que xam nañ amoon na cofeel ci moom li ñuy def rek tout de suite dañuy dem xool euh, la belle vidéo de Mary Ndiaye from Gambia to Dakar Gambia euh, fàttaliku woon naa bu mujjël bi meloon na tegoon na fi benn euh, son boo xamante ne mi ngi doon wax maanaam baal ma di baalu ak waaye ginnaaw bu mu baalu ak ñëw naag doole de bébé nee na ni ni ma mel loo wax ci loolu gisul ni nga mel waaye gis naa ni nga mel euh, di la nuyu di la jaajëfal di la wax fii sa kër la hmm. dalal ak jàmm hmm. gis na ni nga mel gis nañ moom naka la mel noonu waaw xool nañ la gis nañ ni nga mel macha allah bébé xanaa du yow nañ doon taaj démb ci ay waxi sew fii sama palaa sama borom liggéeyukaay Ndiaye la de <laughs> ko waxal Mery Ndiaye nuyoo nuyoo. alors Mery dalal ak jàmm ci plateau bi. merci beaucoup Mado euh, may nuyu ñëpp ñuy seetaan TFM. Mm-hmm. di nuyu fan si Mery Ndiaye. Mm-hmm. Euh, di jël comme ni ma koy defee saa su ne rek di sànni suma nuyoo. back to Gambia. Uh-huh. di nuyu all my Gambian people. Euh, di sànni suma nuyoo États-Unis uh-huh. to Atlanta all my Atlanta people big up shout out to you guys. Ah, di nuyu waa Sénégal. <laughs> di nuyu waa Sénégal comme ni ma koy defee. Ah, di leen jaajëfal di rafetlu invitation bi. alors ni nga koy wax rek it's a pleasure to be receive you yes. here I don't speak English very good but I'm trying yes. waaw comme ni ñu koy xamee Sénégal Gambie macha allah nga génne woon fi y a pas longtemps euh, son bu nekk boo xamante ne da nga doon wax baal ma bii nag projet bu bees la euh, ci lan la exactement ni ma mel nan nga mel et puis lan nga bëgg wax foofu mbokk téléspectateur am um, son bi mu ngi tudd ni ma mel nekk son wu jaayu rek son ego trip dégg ah. loolu <laughs> ci été lañ nekk waaw ñun dañ ko daan xam ci ay wax ci ay mots rapport ma fi dàq a teg fi maa fi dàq bind maa la dàq yëg ci seen affaire yooyu noonu. waaw mais yow boo ñëwee ego trip bi mm-hmm. ego trip physique la bi sax mu ngi ne xam nga mm-hmm. maa ngi nii. Mm-hmm. kuy nëbbatu du ko wax. dëgg la te wax waxaat sax du bari wax. waaw xale baa ngi nii ragalul te dawul yoole. ragalul dawul yoole xale baa ngi na ma def lu nice mm. imposé dosé. ma mm. bégal soppe yi siisukat yi siisooti. fekk seen baari mu naan test. Thiès oh, mu ànd ak Thiès nga nekk nag eh, xale boo xamante ne macha allah nekk am Thiès macha allah je pense que saa yoo génnee mm-hmm. dara rek je mm-hmm. pense que yi dañ koy accepter adopté ko mm-hmm. alors nga xamante ne ci lan nga nekk lan ngay waajal est-ce que benn album boo xamante ne mi ngi waaj wala c'est quoi exactement wala ci album la bokk ah album bi dina ñëw incha allah à bu ñu defee bi dinañ joxaat sénégalais yi leneen ak gambien yi leneen ah du ñu consommer rek ba album bi ñu ngi koy liggéey ko ba si saa yu génne dara rek bébé mm-hmm. da ciy taamu Sénégal est-ce que du nekk lenn loo xamante ne day al diggante Sénégal ak Gambia. diggante Sénégal ak Gambie pont bi kii la. waaw man euh, maay pont bi yaa wax léegi waaw bu ñu bëggee dem Gambie mën nañoo jaar ci moom dem Gambie. aussi bu ñu bëggee ñëw Sénégal mën nañoo jaar ci moom. ñu jaaree ci moom kaw wala ginnaaw mm. kanam wala ginnaaw. kii foo jaar baax na foo jaar yoon. aussi d'accord <laughs> je pense que aussi yaa ngi woon bitim réew. ñu léegoon la fa États-Unis mhm. naka foofu sa carrière naka lay tëddee foofu. mi ngi évoluer wala fii nga gën a xalaat pour. oui ah, bien mhm. sûr ah, carrière bi comme ni nga ko waxee rek dafa am xam nga artiste bu nekk foog am base nga am mhm. base lañ koy wax te tey mënoo génne Sénégal bi ci Mary Ndiaye. kon bu ma defee musique war na tey ma ñëw def suñu musique bokk fii a ah, bokk si artiste fii. mais sama carrière tamit fee tam mu ngi dem comme ñu ngi waajal benn album international. bu tudd live déjà single live génn na sax moo génn juste avant bi. mu nekk benn son wu reggae pour international album bi album bi bientôt rek ñu ngi koy génne. am nga manager bu leen ménager di la teg ci euh, mooy sama manager. doy na waaw soxla woo deuxième ménager. da ngaa bëgg ñëw bokk ci équipe bi. yow bokk na. ah jeex na kon baax na mu léegi comme comme ni ñu ko gisee rek ñu ngi clip bi tamit mu nekk lu nice nga jël ci ay doom sénégalais maa ngi mm-hmm. yi bu baax a baax ñoom mm-hmm. traité tout ñu nekk ay fecckat yoo yoo xamante ne ñu ngi def lu am solo ci ci mm-hmm. waar bi pourquoi choix bi à chaque fois Sénégal ndax Gambie am nga fa tamit ay date yoo xamante ni yaa ngi koy joué ak Sénégal tam ndax am nga ay date yoo xamante ni yaa ngi waral yi ñu ngay xaar ci biir comme ni la ko waxee rek ni ma mhm. bokkee Sénégal laa bokk Gambie Gambie sama kër la mhm. euh, damaa bokk ci Gambie léegi Gambie bu ma jógee fii tout le temps ñëwee dama ñëw Sénégal mhm. bu ma génnee clip def promotion Gambie def Sénégal ba pare dem Gambie. Mm-hmm. tout le temps léegi waa Gambie sax ñu ngi a xaar. pour promotion clip bi. a yaa ngi def ay ah, bien sûr ah, premier son bi ma def mu ngi tudd ah, Believe. sa bopp ak ñu bari sénégalais yu bari si lañ ma xamee. ma def son ak Abdou Guité après ma def son ak Gambien bu tudd Baye Babou. mooy Angel. Baye Babou mi nekkoon ca ca Pape Diouf. borom dëmbal ci gën. <laughs> passage. di nuyuwaale Abdou Guité ah, ñu ñoom ñaar yëpp di samay càmmi ñu baax ah bi mu jotee ñu ñëw ñu def son bi ah. hésité benn yoon ñu ñëw def son bi def lu nice ñu génne ko nit ñi bëgg ko mais ci featuring bu mu nekk ba tey ban artiste sénégalaise comme jigéenu waykat mhm. nga war a gën a mën a gis ak sa bopp pour ça pour ngeen mën a def benn featuring mhm. non man nag sama diggante ak artiste sénégal yu jigéen ñi dafa tax mun naa wax ne samay rakk lañ samay sœur lañ ku ci mel ni Jeyla barki dem maa ngi def plateau mu mhm. ah, la sama xarit xaar ñoom ñëpp pourquoi pas maa ngi gis sax euh, Aïcha ko ne ak Asta ñu ngi def son bu nice ah, ah. pourquoi pas ne musique loolu la musique partage la mhm. bu ñëwee ma ñëw ñu def lu nice mais ko mhm. nit ñi fan si bégee c'est ça artiste yu góor yu ndaw yi comme man nii ñu def featuring waaw yow même yow sax saa yoo paree rek Toch Toch yaa ngi Toch yaa ngi waxal sa bopp de musique bi passe ah yaa ngi waxal sa bopp de ah, kii moo tax ñu di ko taaj teesante liggéey rek laa bëgg liggéey <laughs> waaw Gambie mhm. dama leen sentir bu baax a baax a baax a baax moo tax ma bëgg cee def liggéey loolu naan liggéey kase la dégg man je pense que éternel problème la am kii du jóge ci teesante waaye su boobaa di nga am xale boo xamante ne dafa xarañ te dina la jox li nga xamante ne euh, moom moo di bonne humeur di leen di fàttali rek mbokk téléspectateurs yi on arrive bientôt à la fin de li nga xamante ne moom moo di seetu euh, euh, excusez-moi ci li nga xamante ne moom moo di weekend start bien sûr waaye comme nuñ koy waxee la télévision Futur Média mi ngi fii di leen di fàttali tey seetu Sénégal dina am bu ci kanamee ak ki nga xamante ne moom moo di Amina Poté waaye aussi ñu bañ a fàtte aussi Dakar na dort pas mhm. ci guddi ba tey dina am mais kakatar tant attendu tey encore yaa awa avec sa team dinañ ci génn waaye comme lu ñuy def rek euh, temps bi fi mu ne nii dafa jeex mairie ban message ngay tàggatoo ak mbokk téléspectateurs yi balaa ñuy tëj euh, pour tàggatoo euh, maa remercier fans yi mhm. giving a big shout out to all fans képp ko xam ne rek moo ngi bëggee Mairie Ndiaye di seetaan suma clip mhm. ah, ma lay bëggee di la jaajëfal di wax ñëpp ah, ñu dem YouTube pour dem xool clip bi ah, mu ngi génn démb. Ah, di wax ñëpp ñu dem xool clip bi. Mm-hmm. di xaar xale yi seen TikTok ah ñu kaf ci rek. ñu def ko ay ah. challenge def ko ay challenge waaw. TikTok naa ko. jeex na tàkk yow yaay deuxième TikTok. ah mu ci man leer na après mu def mu def c'est ça. <laughs> alors bébé ci TikTok bi lan ngay tàggoo bokk téléspectateurs yi. waaw di leen kontaanee bu baax di mm-hmm. leen jégaluwaat euh, bu baax a baax di leen wax ni mooy loolu émission bi mm-hmm. moo demee ni parce que euh, kenn du doyal temps bi temps yaa ngi ñëw ak yooyu noonu di leen mm-hmm. bëggee di leen mm-hmm. kontaane bu baax a équipe technique bi nga xamante ñoom nañu àndaloon ci émission bi euh, donc les deux Ibou Diouf caméraman yi nga xamante ñi ngi fi euh, Aba Kara moom itam nekk ci au niveau de la régie et toute la team ku lim da ngay juum donc ñi ngi remercier Khadija waaye toujours bu leen fàtte Adja Vessel moom itam elle est joignable au 77 707 euh, euh, excusez-moi 77 723 32 32 waaye di fàtte toujours li nga xamante ne moom moo di orange moom nañu àndaloon ci xaalis bu bare mhm. bi ñu teg ànd ceeg télévision Futur Média bu jox li nga xamante ne moom moo di xol bu sedd mbokku téléspectateurs yi ah ci noonu restez toujours connectés avec la télévision Futur Média

ñëpp. Mm-hmm. équipe Mary Ndiaye Mary Music Entertainment. Ah, di nuyu sama yaay xam naa ngi seetaan hi mami ah, di nuyu sama papa samay rak sama mag Tulaay. Uh-huh. Ah, di wax ñëpp ne ah comme ni ma ko waxee rek. Mm-hmm. TikTok yi maa ngi xaar challenge. challenge yëpp maa ngi koy TikTok bi. man tamit naa dinaa TikTokale alors su fi un plaisir mbokku téléspectateurs yi présenté leen leen li nga xamante ne euh, moom moo di euh, Weekend Star donc di souhaiter nag un bon rétablissement à tout la team parce que ñoom ñëpp dañu àndandoo tuddandoo waaye dinañ jógandoo jàmm incha allah d'ici là restez connectés avec les programmes de la télévision Futur Média comme ni ñu koy waxee moom mooy seetu askan bi.